Thank you. internet yu 5 TV ma seeni nopp ma dégtal leen li yéenekaay yi ñu door ko ak laas yéenekaay bi xëy si kàddu yi Sonko di njiital Pastef ya mu amaloon démb ngir àddu ci doxalinu njiitu réew mi Macky sàll ci mbas mi yéenekaay bi ne usmaan Sonko génn na ci noppi ga mu noppi woon ba noppi jaxase lépp ndax lépp lu Macky ne woon waaw moom Ousmane Sonko nee na ca déet Walf quotidien di ko ca feelu yéenekaay bi ne kii di Ousmane Sonko makki sàll di njiitu réew mi ak jëwrinam bii di Mansour Faye la daldi jël boole leen ci benn saak ndax nee na ñoom ñaar ñépp a yem moom usmaan Sonko ne njiitu réew ba woon di Abdoulaye Wade na mu doxale woon ak doomam Karim Wade noonee la makki sàll doxalee ak gorom bi di Mansour Faye ndax juróom fukki ministère la ko jox ba tey moom usmaan Sonko ci Walf Quotidien mu teg ca ne njiitu réew mi masul jël ay dogalam maanaam décision wu boppam waaye ci Macron daal lay xool di coppi di kole ba tax mu ni moom njiital Pastef Macky Sall daa daw ay wareefam maanaam abandon de responsabilité la def mu yokk ci la Tribune yéenekaay ni Macky Sall kay yemul ci abandon de poste incompétence di maanaam ñàkk a xarañ ak manque de courage politique di ñàkk gëm boppam la wone waaye Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon fi njiital jëwrin tontu na kii di Ousmane Sonko ci Walf Quotidien li mu ko wax rekk mooy kii di njiitu réew mi Macky Sall nekkul di toppandoo wala di roy Macron keneen ku tontu Ousmane Sonko di Aminata Touré ci Vox Populi moom mi fi nekkoon njiital jëwrin li mu ko wax rekk mooy jamono ji du jamonoy politique ndax crise bu metti la ñuy dund jamono ju nekk daa am lu muy laaj ba tey moom Aminata Touré ci la Témoin yéenekaay nee na kii di njiitu réew mi benn pression amu ko mu mel ni jamono ji politiciens yi dañoo nekk ci guerre ba tax réew mi quotidien bind ni politik bi ubbi na ci digg mbas mi le témoin yéenekaay ne jàngoroy coronavirus bi jur na ab ñàkk a déggoo ci sunu kilifa yi ñu wax ci corona bi ak tolluwaayam ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci la turbine démb téeméeri cas yu tegal fukk lañu amoon te juróom ñett ya ay kaa communautaire lañu maanaam kenn xamul ku leen ko wàll critique yéene kaay yokk duñu ci xamal ni jàngoro ji romb na fa ñu ko foogoon ñaari junniy cas ak téeméer ak juróom lañu confirmé ci réew mi bi fi mbas mi duggee ak léegi ba noppi mu faat fi ñaar fukki nit ak ñaar ma sàmba Sylla ci l'observateur yéenekaay kaay ni lii ñëw moo nar a gën a metti lu ñuy dund jamono ji Sud Quotidien moom li mu fësal rekk mooy ci li nga xam ni njiitu réew mi sàkku na ko ngir ñu ubbiwaat barabu jaamukaayu yàlla yi li ci mel ni église bi ak jàkka omariyan bi nanguwuñu lu ni mel li ñu wax rekk mooy dañuy wéy di tëj seeni ay buntu ñu jeexal ak libération yéenekaay mi xëy fësal kàddu yi baay bi rey ñaari doomam ca tuubaa yéenekaay bi ni moom Baara Touré dëggal na ni moo rey xale yi waaye xamul lu ko ko defloo te ba mu leen reyee ba noppi jàkka la jubali daldi julli fii la ñuy ndar keppee li si yéenekaay yi ma delloo leen seeni nopp ba ëllëg insha allah jërë ngeen jëf